Bienvenue sur votre site d'information, Tiv Actu TV, la chaîne de toute l'actu waaw kay mbokk yi actuellement nii tabaarakallaahu ñoo ngi fii ci rawdu Serigne Babacar Sy macha allah euh, euh, yaakaar naa bi ñu xëyee euh, loolu la tabaarakallaahu macha allah mu ngi ñu jox alxamisu Serigne Abdou Aziz Al Amine képp koo xamante ni si ndaw nga di doomu Tiwaawan am nga tiis ak njàqare bi nga xam ne moo dal suñu kaw ñu taxaw nag Serigne Cheikh ma Tidiane mbay ak Serigne Pam mbay Mbaye nga xam ni moom lañ tuddee ki nga xamante ni si moo fi jóge tey mi Pam Malick Sy di caatu Serigne Babacar Sy tabaarakallaahu macha allah Cheikh Tidiane ñu ngi leen nuyu di la laaj Cheikh Tidiane loo yëg tey. salaamaaleykum wa rahmatullahi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah, li ñu yëg rek mooy tiis ndax Serigne Cheikh Tidiane si bu daan wax ni dee du naqar tiis la waaye nag wax dëgg yàlla la Amadou Hampâté Ba waxoon ni en Afrique un vieillard qui meurt c'est un bibliothèque qui brûle tey mën nañ ko wax ci kër Seydi Hadji Malick wax nañ ni keno keno gu màgg moo fi jóge waaye tabarakallahu li ko waroon yëpp def na ko sànq dama wax ni xam naa ni tey suñu borom dina recevoir néew bu am personnalité néew bu am dignité néew bu xam addina néew bu xam diine néew bu xam politique néew bu xam kër Seydi Hadji Malick néew bu modeste bu bu bu humble bu solidaire ndax être personne c'est accepter de dépasser ses intérêts égoïstes et se mettre au service de la collectivité. ku yàlla baaxaloon na moom Serigne Pape Malick si ndax koo xam ne kër Seydi Hadji Malick ni mu yaatoo ku yor kaddu gi kooku du n'importe qui kon tabarakallahu di ñaan suñu borom yàlla na ko yàlla wane waneleeg mag ñi te incha allahu am nañ ci yaakaar ndax bisu tey bi ndaxte laal xames ndax tubaanu amaluna yowmal xamis si la woo yowmal isnayni fi istixfaari sil juram te tabarakallahu Pape Malick mii di caatu alaaj mbay donde uh-huh. nga xam ne moom moo nekkoon caatu sëñ Babacar Si Baay mbay donde tuddee ko ko gént gu yéeme la gént ci moom wala sànq bi ma ko nettali dama ne koy sa turandoo daf laa daf laa tàggu waaye nag nettali ci làq làmmiñu borom la dàqee xam na loolu dañ koy bàyyeek moom euh, incha allah dañuy ziar Pape Malick Mbaye di ko masaw mhm. tabaarakallaahu Pape Malick Mbaye caatu bay doon bay donde waaye euh, seen mag tamit mi ngi ne taxaw di alsaan Mbaye tabaarakallaahu macha allah mhm. Mhm. Euh, Pape Malick Mbaye caatu bay may donde Pape Malick ñu tuddee ko Pape Malick caatu Serigne Babacar si xaaj Pape Malick ñu ngi lay laaj bi nga xëyee loo yëg waaw ah, bi ma xëyee li ma yëg mooy li jullit yëpp yëg rek fa tabaarakallaahu damay yëkkatee rek fi Cheikh daane lee ndax fan yi new dama ko gént gis ko eh, am lu ma ko laaj ni ko dama bëggoon nga jox ma loo xam damay gis mag ñi bi mu ñaanalee ma gëm xippi gis sam papa bi ma ko gisee après moom mu ni sam dem moom it mu dem ni ma dafa am lim boo xam ne ci mag ñi eh, damay dem mottali ji ko ma koy woo di ko woo di ko woo ñëwaatul après bii lii xewee nga xam ni rek kon mag ñi ñoom fu nekk ak ni ñuy jaarale seen mbir mm-hmm. ñuy dem dañuy tàggoo dañuy tàggu ci njaboot yi xam naa njaboot yi gën a tuuti ci laa waaye loolu dañ koy sant yàlla rek ndax am kilifa muy dem misaale la ko noonu wan na la ne boole naa la ci sa njaboot te daf ma daan wax faral di wax nii ma njabootu jàmbur tabaarakallaahu ñu koy ñaanal yal na yàlla dolli leeru bàmmeelam mag ñi mu doon ñëpp yàlla nañ ko teeru ci am am barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad tabaarakallaahu Xaaj Pape Malick ñu masawu leen euh, waaye Sénégal gépp ñàkk nan euh, Tiwaawan ñàkk nan waaye rawatina njabootu Baye waa kër Baye may doon na nga xam ni bu burdu jeexee ñoom ñooy accompagner tabaarakallaahu macha allah Serigne Pape Malick Sy di ko wayal Jara Iru Naatum xaa nga xam ni seen maama ko daan way mbokk yi yéen a ngi fii dañu suivre ci Tivactu tabaarakallaahu di seen boo xamante ni si mi ngi fii Tiwaawan euh, incha allahu taala lépp loo xamante ni si euh, ci euh, ci kii bi la dinañ leen ci indil ay leer yow nga xam ne yaay topp seen bi nga xamante ni si mooy Tivactu seen YouTube mbokk yi incha allahu taala xam naa ñu demal leen rek ci yeneen di kii incha allah yeneen programme ngeen suivre ñu fii ci Tivactu